Heavy Waves.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 këy xale yi jigéen yooyu nee ñu ay nigérien lañu toll ci ñaar fukki xale yu jigéen ak ñeent te sax ci biir ñaar fukk ak ñeent yi nee ñu am na ci ñaari xale yu jigéen yoo xam ni kenn ka fukki at ak benn la am kàcca des fukki at ak ñeent ñoom ñépp ñu leen di jaayloo seen bopp waaye ana ñuy défendre xale yi ma fa ñuy gasee oor yi ci diggante Tamba Kédougou lañ leen doon defee lu ni mel fii mu ne ñoom ñépp teg nañ leen loxo wax ji léegi tey mooy ñan ñoo leen jëlee ca sous région bi daal di leen indi leen fii ci Sénégal ndax léegi nag boo seetee Sénégal réseau yi ni mel bari na jëlee ay jigéen bitim réew leen fii ci Sénégal saam leen ni njaay di leen jaayloo seen bopp ma ne réew moo xam ne frontières yi comme rideau may ga nii moo tax maa ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graw corona la wax la xew ca Medina Baye jéggi na dayoo ay sàcc ñoo fa attaqué ab commerçant waa koñ ba ak police yi daal di koy ñoom ba dal ci faat benn sàcc benn policier bi jële ci ay blessure mbir moomu nag nee ñu mi ngi xew guddi samedi jëm dimanche ci 23 juin bi weesu boori 4 heures du matin moom dal ay samba booy dal na sarax ci koñ ba yu ba mardetaali dal di song ab commerçant fekk boobu xale yu rond ca koñ nga fa woon dal di jàmmarloo ak ñoom woo police dal di ñëw renfort ñu dal koy jëflante ak def ko tu ñaaw teefi bi ba mujj cee faat kenn cey réew mi comme film de benn policier bi ñu dal di ko ci blessé defkatu ñaaw tef yooyu nee ñu ca Senelec bu ngaan sayeer lañu ñu njëkk a jaar dal di fonet tungaañ ab oto dal di koy sàcc bi ñu defee loolu na la ñu dal di dugg ca koñ ba fekk fa ndaw ya ak policier ba musiba ba dal am ma réew mi laaj na sécurité moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a grave corona laa wax ma Sénégal ba léegi mbëkk maa ngi wey de Barça wala Barsaq gi mu ngi gën a jolli ci réew mi xale yaa ngay jël gaal ya di génn réew mi ba léegi de ma ne marine nationale teg na gaal goo xam ni doomi réew mi yuy màngaani ñoo ca nekkoon tolli ci téeméer ak juróom fukk ñoom ñépp doon wutali bitim réew mbir mooma nag nee ñu mi ngi am guddi altine jëm tala talaata gi weesu ca waaxi ndar géej ya candidat yooyu nag ñu ngi leen tegee loxo ci digg géej ga ki patrouille bu mari nationale doon def bi ñu leen tegee loxo nag constaté nañ ne am na ñetti jigéen yu ci nekkoon ñetti xale yu ndaw ak juróom benn nit yoo xam ni dañ leen fekk ak tawaat ba fi mu ne ñoom ñëpp ñu ngi leen di jël en charge man réew mi ba léegi màngan mi dañul dee ndaw ñi ba léegi ñu ngi utali géej gi di dee moo tax maa ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a grave corona laa wax la xew ca place bu Mali bu ca golfe sud romb na doy waar moom daal ab caroleur bu am 23 ans di wuyoo ci M Mbeng la fekk ci place bi mu faatu ba noppi ñu la ko ak toile musiba naaru lay agression la wala da doon sangu ci géej gi ba lii am am wala dafa dee boo xam ne deewu naturel la ak lu ci mën a am ubbi nañ ci ab lanket karaleur bi nee ñu bisi julli gannaaw ba ñu rayee xar ba noppi ci la jëlee desit yi di ko sànni ji géej gaa yi toog toog gisuñu ko bi ñu ko wëree wër ci lañ ko fekk ci place bu Malibu bi mu ñàkk bakkanam ba nopp ñu lëmas ko ak toile eskay ma ne lu ci mënti am de dana leer ndax suñu enquêteurs yu xarañ yi lu am ci biir dana leer mu doonoon seen xibaaru buzz dig daje beneen yoon ci yeneen xibaaru buzz